mbokki Sénégal ñun waa coalition naataange askan bi ñoo dellu si tey ngir waxtaan ak yéen tey nag li ñuy waxtaanee mooy l'indépendance de la justice mbirum àq ak yelleefu doomu aadama waaye ñu koy njëkkee ci ñoo xam ni ñoom ñoo jiite le corps muy les magistrats bés bu ñu yàlla dimbalee ñu dem à l'Assemblée nationale la coalition naataange askan bi dinañu revaloriser salaire attekat yi nek dans les tribunaux multi ci département yi muy ñu au niveau des régions muy ñu au niveau de des cours d'appel muy ñu aussi au niveau de la cour suprême ngir kenn ku ci nek. fi ngay exercer ce lieu, nga mën ci gis sa bopp su ñu jëlee ay réew yu États-Unis xam nañ ni attekat yi fa nek, ñoom dañu am lu bénéficier mooy ñoom suñu demee ba toll ci ben station bi génn àdduna rek mooy tax ñu bañati exercer seen métier lu mel noonu nag dina bokkit lu ñuy proposer fii au Sénégal nu ko américain yi di waxee the right man of the right place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut beneen bi mooy mbirum greffier yi ñoom nekk nañ aussi un corps boo xam ni dañ leen war a renforcer ndaxte lépp luy décision de justice gis nañ ni que greffier yi ñom ñoko yor ñom ñoy accompagner les magistrats ci liguey gu am solo bu ñu nekk di def ba légui ci kooru justice suñu xolé ñu ñi wowe les avocats amna na benn fonds spécial buñ leen alloué waye ñi ngi demander aussi au moment opportun dinañu bind au gouvernement ngir ñu renforcer avocats yi kenn ku ci nekk ci ñom wara a bénéficier wu ci loo xam ni nekk na ci fonds yooyu noonu yu ñu jagleel réewum Sénégal su ma jógee ci mbirum attekat yi na may dem ci lu ñuy woowee les corps militaires et paramilitaires tey soo jëlee Sénégal lu mel ni suñu l'armée soo jëlee lu mel ni suñu police nationale soo jëlee lu mel ni gendarmerie nationale soo jëlee marine nationale soo jëlee police nationale tey ñoom ñoo yor ak ak yelleefu doomu aadama Nous ñi dit les corps militaires et paramilitaires ñun askan bi suñuy nelaw ba suñuy xel dal ñoo tax donc nous it dinañu proposer à l'État du Sénégal nous renforcer les corps militaires et paramilitaires ñu mën bénéficier wu am ay avantages yo xamanteni seeni nawle am nañ ko ci les gardiens de prison muy un corps bu ñu administration pénitentiaire bo xamni ñuko jité nek de la hiérarchie A moy inspecteur yi ak contrôleur yi les sous-officiers ci ñom nek agent nekkaale aussi des surveillants de prison ñoñu it bés buñ ci tolloo egg à l'Assemblée nationale dinañu proposer pour ñu renforcer kat ñoñu it yor karangé ñu nek ci bir kaso yi ñoñu it nek ci bir prison yi dinañu proposer au ministre de la justice état amna effort yu muy def waaye ñu xool naka lañu mën a def ba détenu bu ci ne ci budget bu ñu leen jagleel mu mën a egsi au minimum à cinq mille francs ñu mun di ndekki convenablement di añ di reer mën naa leen jël ci xaalis boobu di ci yónnee ci seen i njaboot loolu dina nekk ay proposition yu coalition naataange askan bi nar a jël teg ko fa beneen bi ba léegi mooy soo jëlee corps paramilitaires yi ñu demee à la retraite ñu xool nan la ñuy jéem a revaloriser ñoom ñëpp seen i pension ndaxte kenn ku ci ne ci ñoom war nga bés boo demee à la retraite nga mën a bénéficier wu am un logement décent boo mën a dëkk yow ak sa njaboot ci loolu it ñuy wax la police nationale ci liggéey bu ñu yor ci mbirum kaaraange gu ñu yor ci nuñ leen nawee sur le plan national et au niveau de la sous-région ba mu jaral leen mission yu am yépp ñuy mën a contacter Sénégal di jël ñenn ñi di leen yóbbu ci mission yi ñu xool nan lañ mën leen renforcer seeni salaire muy ci commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle ba ci ku gëna ndaw moy policier bu dooro génn tey école nationale de la police noonu it lañuy ñuy xoolee corps bu mel ni sapeur pompier yi ci taxawaay bu ñu am ci réew mi ci mbirum lakkudaay ak ci taxawaay boo xamante ni am nañ ko ci mim réew te ñëpp àndal leen ci naw loolu lañ leen indiloon tey mooy coalition naataange askan bi ci mbirum justice ak ci mbirum corps militaire et paramilitaire avec la coalition Natangue Askanbi, osons ensemble, gagnons ensemble et gouvernons ensemble dans le respect, la sagesse et la discipline. Je vous remercie.